sayyidina wa mawlaana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain mbokki jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di di leen ziyaara ci bis bu tedd bi di ñaan yàlla sunu borom tabaarak wa taala mu nangul ñu mboolem jaamu ngi ciy def ñoo ngi nuyu ak di ziyaara sëriñ bi di ñaan yàlla yàggal ko fi damay ko wér ak kàttan ba mu àggale mboolem naalam yi teñ ànd kook moom mbokki jullit yi dañoo dellusiwaat ngir fàttalente ginnaaw bañ ci jiitalee sunu bopp ci ngëneelu xam-xam ak wàccuwaayu boroom xam-xam yi ngir solo si nga xamante ni moom la am ci lislaam te jullit waxtu nekk mu war di nafaraat boppam ba xam fu mu toll ci ndigal yi ba man caa tënku ak fu mu toll ca tere ya ba man koo moytandiku doy na xam-xam solo ak boroom xam-xam yi ci li sunu boroom wax ci suuratu ali imran laaye fukk ak juróom-ñett ne shahida allahu annahu laa ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist nee na yàlla ci boppam tabaraka wa taala moo njëkk a seere ne moom mooy yàlla dëgg-dëgg amul benn buur bu ñuy jaamu tam yeyoo jaamu ga te jaamu ga di jëriñ ñàkk a jaamu ga di lore kudul moom yàlla loola nee na moo ko njëkk a seereel boppam waaye mu teg ci ne ba mu ko seeree ba noppi itam malaayika ya ñoo ca toppaat seere loola waaye ñam ca sësale nag ginnaaw yàlla ak i malaayikaam mooy ulul borom tam ci laay téeméer ak fukk ak ñeent ci suuratu Taaha doon digal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko na ngay sàkku ndollin ci lan mu xanaa ci xam-xam wa qul rabbi zidni ilma mënoon na ko digal mu sàkku ndollin ci yu baree bari waaye nag xam-xam la tudd fii loola itam dolli xam-xam daraja ak boroom xam-xam yi mu waxaat tam ci laaya juróom-ñeent ci suuratu zumar qul hal yastawi alladina yaalamuuna walladina laa yaalamuun innama yatadakkaru ulul bi mel ne dafay laaj te moo gën a xam lépp mu ne ndax ñi nga xamante ni xam nañ danañ yem ak ñi xamut waaye mu teg ci nag ñay bàyyi xel loola xam ne ña xam di borom xam-xam mënuñoo yem ak ñi réer ñay bàyyi xel loola mooy boroom xel xel yi ci doomu aadama yi innama yatadakkaru ulul albaab kon boroom xam-xam mënut a ku amul xam-xam loolu borom bee ko saxal mu waxaat feneen itam ci laaye fukk ak benn ca suuratul jidaal ne yarfau llahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat wallahu bi ma a xabiir nee na ñi gëm yàlla yàlla baax na leen dana leen yëkkati ay daraja waaye ca biir ña gëm yàlla nag ña ca am xam-xam ñoo cay féetewaat kaw dina walladina utul ilma darajat kon ndekete bu ñëpp àndee gëm yàlla yàlla jox na leen daraja waaye ña ca dolliwaat nag gëm yàlla teg ca nekk boroom xam-xam tey jëfe seen xam-xam loola beneen daraja la beneen wàccuwaay la ñu seetlu na itam am na lu am solo lu diine jox yitte lool te mooy ragal yàlla loolu boo demee ci saaru faatir laay ñaar fukk ak juróom-ñeent ma nga fay wax ne innama yaxsha allaha min ibadihi lulama inna allaha azizun ghafuur neena na ña ña gën a mën a jekku ragal yàlla ci jaamam yi donte ñëpp lañ ko soxla nag nee na ñee ca gën a jekk ñu gën koo séntu ñoom mooy boroom xam-xam yi moo tax ragal yàlla googu nag di lu am solo loo xamante ni ku jàngoon ba ne ar itam te amoo ragal yàlla googu itam duñ la tudde boroom xam-xam ci nit diine ñu baax ñi moom la sëriñ bi di junj ci masaalikul naan naan inna alladi lam yaxsha rabbal alamin laysa bi aalimin walaw afna alfunun loolu kon ci alquranul karim la ak bayit woowu nga xamante ni mi ngi jóge ci sëriñ bi radiallahu anhu waaye sayduna muawiya alayhi salaam wala radiallahu anhu moom moom itam wax na ne di nett ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na woon ku yàlla namm ci yow aw yiw dana la jàppale ba sol la xam-xamu diine man yuridillahu bi xayran yu fi diin rawaahul buxaari te aw yiw nag jullit bu nekk war na koo bëgg te nee na ko yàlla namm ci yow aw yiw dalay jox xam-xamu diine loolu war a jalab jullit bu nekk itam mu xar tànkut ba yem ba jàngi ba xam diineem abdullah ibnu masud radiallahu anhuma wax na itam yonent bi nee na woon laa xasada illa fisnatayni añaan de baaxut waaye mana mënees na ko xëy na jéggale ci ñaar mooy rajulun aataahu llahu maalan fa sallatahu ala halakatihi fi lxaq ku yàlla jox alal ba nopp xiirtal la ci nga koy def ci lu baax muy kenn waaye kam ca teg moo ñu yëkkati muy wa rajulun aataahu llaahu alxikmata fa huwa yaqdi biha wa yuallimuha ak koo xamante ni yàlla daf koo jox xam-xam mu wëlbatiku di jëfandikoo xam-xam boobee di ca àtte nit ñi te teg ko ci dëgg waaye wëlbatiku di ko jàngal nit ñi xadis boobu rawaaxul buxaari loolu itam tegtale ne kon xam-xam am na solo lool ñu jëlee itam ci sayidna umar ibnul xataab radiallahu anhu mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam waxoon na ne alquran jii dey yàlla dana ci yëkkate aw nit dana ci suufeel aw nit ñam ca yëkkati nag mooy ña ko jox yitte ña nga xam ne bi ñu nekkee àdduna jox nañu alquran yitte ca jàng ga ak mokkal ga ak jëfe ga nee nañ sunu borom dana yëkkati nit ñooñee waaye ku def safaan ba itam doyadal alquran suufeel ko itam sunu borom suufeel la inna allaha yarfau bi hada alkitaabi aqwaman wa bi bihi axarin muslim moo nett li xadis boobu loolu kon ci alquran la ak ci sunna lépp di tegtale solos xam-xam ak solos borom xam-xam yi buñ dikkee ci waxe nit ñu baax ñi nag te bari na lool sayduna maazum nu jabal radiallahu anhu dafa waxoon ne taallamu lilma fa inna taallumahu lillahi qasiya na ngeen di sàkku xam-xam rawatina xam-xamu diine ndax su ngeen ko sàkkoo ngir jëm yàlla man ngeen caa amee ak ragal yàlla wa talabuhu ibaada nit ki itam bu solee aw dàllam di sàkku ci xam-xam lam cay daj lépp mën naa soppiku ak jaamu yàlla wa mudakaratuhu tasbiix nit ki itam su dee nafar bind ci xam-xam ngir bañ koo fàtte loola su ko borom bi nangoo mën na koo soppil mu nekk ay ay subhanallah di sellal yàlla waaye mu ko jihaad nit ki su amee xam-xam wëlbati ko di ko jàngale ngir jëmmi yàlla itam mën naa nekk jihaad ci moom yii yépp nag muy ragal yàlla ak jaamu yàlla ak tasbiix muy sàbbal yàlla ak jihaad lu ci nekk rekk jar na jullit mu dox jëm ca ngir am ko waaye nag nee na sàkku xam-xam ak jëfe xam-xam dana ko maye yonent bi aleyhi salaatu wasalaam tam waxoon ci xadis bu rëy rëy ne woon la an yahdiya allahu bika rajulan waxidan xayrun laka min umru naam su la yàlla baaxewoon ba kenn gindeeku ci sa loxo nga xam ne ci yow la yàlla jàll jaarale sabab sa ba mu gindeeku nekk ku baax nee na loolu moo gën ci yow ñu joxoon la li gën a seer ci alali àdduna yonent bi aleyhi salaatu wasalaam tam waxaat ne ku sóobu aw yoon ñu laaj ko lu tax nga sóobu yoon wii yoon wii nga topp loo ciy wuti mu ne xanaa sàkku ji xam-xam mu ne sahala allahu lahu bihi tariqan ila al janna yoon wa weesu ko wàccut sunu borom dana ko ca yombal yoon woo xamante ni ci njub bu ca jaaree te wéy ca sunu borom mën na ko caa tàbbal aljanna mu teg ca ne wa inna al malaikata la tadahu ajnihataha li taalibil ilmi ridan bi ma na malaayika yi sax dañuy lalal seeni laaf di ko terale ñi sàkku xam-xam ngir bég ca la def wa inna al aalima la yastaxfiru lahu man fi samawati wa man fi ardi xatta alxiitaanu fi mu ne boroom xam-xam ngir yittewoo gi ko yàlla yittewoo ak daraja ji mu ko jox dana tax ñi nekk ci biir asamaan ak ñi nekk ci suuf kaw suuf ba ci jën yi nekk ci biir ndox sax dañ koy jéggalul yàlla wa fadlul aalimi ala al aabidi ka fadlil qamari ala saairil nee na ngëneel li nga xamante ni ki am xam-xam te di ko jëfe ëpp ëppale na ko kiy jaamu yàlla te tegu ko ci xam-xam waaye da koy tëñaxu nee na ngëneel loolu mu ngi mel ni ka fadlil qamari ala saairil ni weer ëppee ak leer biddiw yi noonu la ko gënee يشهدون إلا الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم متكنا وأن وإن العلماء ورثة الأنبياء nee na boroom xam-xam yi ñooy ñi doon yónnente ya wa inna al ambiyaa lam yuwarrisu dinaaran wala dirhama innama warrasul ilma buñ la waxee nag boroom xam-xam yi ñoo doon yónnente ya na xam ne yónnente ya bàyyiwuñ fi ay dërëm ak i diinaar waaye xam-xam lañ fi bàyyi moo tax fa man axadahu axada bi xawdin waafir ku jël seen doona te mooy xam-xam nag nee na am nga cër bu duun xadis boobu at-Tirmisi moo ko solo noonu ci nit ñu baax ñi waxee la ci abdullahi wa xaadimu rasulillahi waxee ndax lu baax rekk lañu mas a bëggal moo tax mu dénk ñépp ne leen na ngeen dëgmal wuti xam-xam te boole ko ki teggin wasaytukum yaa jumlata tullaabi bi talabil ilmi ma al adabi mu ne nga na ngeen di góorgóorlu ci sàkku ji xam-xam te boole koo ki teggin ak jëf-jëf ju baax ndax nee na ñett yooyu kat te mooy xam-xam ak jëfe xam-xam boole koo ki teggin waxiya jaalibatu raxa bi mboolem xemmem te fii yooyu ko mën a bijji indi ko xacc ko ijtahidu fil ilmi wa taaddubi wa saayi waxiya jaalibaatu raxa bi mu wax ak gone yi moom sëriñ bi wax ak mag ñi ñépp mu digal leen ñu sàkku ci xam-xam wax naa gone yi ca tasawudu sixaar ne leen yaa ayuha sibyaanu laata tastaxilu anil huda wa bil ulumi staxilu yéen ndaw ñi bu leen yittewoo lu dul ak njub te na ngeen di yittewoo xam-xam yi fastaxilu bil xifzi wa tilaawa wa istanibu majalis saqaawa fu ngeen man di nekk yéen ndaw ñi na ngeen di yittewoo mokkal alquran ak di ko jàng te moytandiku fu ñuy defee lu naqar yàlla noonu la wax waxambaane yi muy mag ñiitam itam ne ee yéen waxambaane yi yaa ayuha subbaanu in xiftum xajal fa qaddimu taalluman ala amal yéen waxambaane yi su fekkee ragal ngeen gàcceeg àdduna ak àllaaxira na ngeen di jiital xamlu bala ngeen di jëf mu teg feneen wax ne ndax jamono ji ñu nekk jamono jamonoom la doon wax waaye rawatina jamono jii ne na koo fi gis muy tere tere am njàng na ko wóor ne lam bëgg mu wuutu ko mooy dafa bëgg woon ñi ñuy jëfandikoo biddaa bu ñaaw a ñaaw ndax nee na jëf su àndut ak xam-xam ci yàqu rek la jëm fa inna man fi za zamani manaa min attaallumi fa in daa li bidaatin saniatin idil amal in lam yakun bil ilmi saabahu xalal mu teg ci ne ku dox seen digganteeg sàkku xam-xam na leen wóor ne tere googee ak dox googee mu dox seen digganteeg sàkku xam-xam tegu ko fenn ci lu dul ak réer moom itam ci réer la nekk wa man nahaakumu an taallumi fa nahyuhu ila dalaali tamit mu tegaate ne ku dox seen digganteeg sàkku xam-xam baye boo saytaane dem toogi ndax lu mu naroon a yàq ko yàq ci àdduna kooka koy yàqal wuutu ko wa man nahaakumu an ittaallumi fa huwa xalifatul laayinil mujrimi fi kulli ma yufsiduhu wallaahu jal xasibuhu yowmal jazaai wal wajal biir xam-xam yu nga xamante ni sëriñ bi yàgg na cee soññee rawatina nga xam faratey jëmm yi nga xam ne borom bi dafa ko gàll te du la wàcc ba mukk nooy laabe nooy tiime mu wér nooy jàppe mu wér nooy sangu sangu set nooy jullee farata ak sunna ya nooy woore nooy xàmmee jikko ju baax ba mën caa tënku nooy xamee jikko ju bon ba mën koo maytandiku muy faratay jëm yooyu Sëriñ Tuubaa nee na mut ta sàggane ndaxte nee na taallamuha walaw bil lugatil ajamiya dem leen jàngi faratay jëm yooyu doonte ne làkk ngeen nàmp ngeen koy jànge donc donte ne ci wolof nga koy jànge wala séeréer wala pulaar wala màndink walla làkk wa nga nàmp nga koy jànge moom farate jëm yooyu ba xam ko jar na ko nee mu ne waman lam ku deful lii ma ko wax nag ku toog ñu ne ko demal jàng sa farate jëm mu lànk bañ koo defi waman lam ku ko nanguut fala yellow mën na illaa sa ëllëg bis pénc yedd léeg-léeg danay am de waaye nee na bu mu yedd kudul boppam loolu nag ko xam Sëriñ Tuubaa xam ne tëkku bu rëy la waaye ku ko dégg itam te nekk ci àdduna te di ko déggal wala xam ne kon lii muy soññee lu mat a soññee la moo tax nag mu dikk ci xutba bi imaam bi loolu lépp laytaay la woon jëm ci itam solo si xam-xam am la ciy wax wax ne meññetam xam-xam day mi ngi ci aju ci jëfe ko ci jaamu yàlla ndax nee na xam-xam boobu mooy tedd ngay doomu aadama mooy ngëneel li nga xamante ni itam bu doomu aadama rawee meneen mbindeef ci mbindeef yàlla yi féete ko kaw xel moomu muy ba am xam moo tax te bu fabee xam xelam moomu jàng ca xam-xam ba am ko rawatina xam-xamu diine ba mën a jaamu yàlla jaamu yàlla gu wér hiya sababul fawzi wan najaat wa sabilu saadati wal falaax nee na mooy sabab si nga xamante ni ca la mën a amee taxe ca la mën a mucce te mooy yoon wi mën a amee taxe itam wa hiya sariatul xaqiqati wa xaqiqatu sariati wa minhaajul janna nee na mooy sariat dëgg-dëgg mooy xaqiqatu dëgg-dëgg te mooy yoonu aljanna ndax doomu aadama li tax borom bi wàcce ko ci kaw suuf mooy mu jaamu ko borom bee ko leeral wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li mu teg ci xutba bi ne na ngeen xam ne jaamu yàlla googu nga xam ne ci xam-xam moo koy lay taay ñaari xaaj la sattul limtisaali wa sattul lijtinaab topp ndigal ak moytandiku tere nee na topp ndigal mooy nga jëfe topp yàlla yi te mooy farata yi ak naafila yi waaye nga jiital farata yi nag ndaxte nee na mooy kapitaalu alal ji te mooy cosaanu commerce gi te ci nga mën a amee ak mucc muy farata yi moom nga war a jiital waaye nga bañ a gannaawal naafila yi ndax an naflu huwa ribxu wa bihi taxuuzul fawza fi darajaat mooy tonol mooy bénéfice bi boo defee say farata ba noppi nga toftal ci say naafi la ngir nga mën a am tonow mën am bénéfice ndax mu ne yonent bi alayhi mi ngi nettali ne borom bi nee na maa taqarraba ilayya almutaqarribuuna bi misli ma bi misli adaa'i maftaratu alayhim nee na ñiy sàkkoo je jaag sàkkoo ma jege man yàlla ci jëf-jëf yu baax yi dara gën ma ca ñu jëf farata ya ma gàll ci seen kaw kon farata la ñuy jiital waaye ñu bañ a gannaawal sunna itam mooy naafila ndax wala yazaalu abdu yataqarrabu ilayya bin nawaafili xatta uhibba nee na nit ki du deñ di ma jege jegeñul ci ay naafila ba mu mujj sopp ko mu ne tere yi nag mooy nga bàyyi wala lañ lay moytalikoo mooy nga bàyyi yañ la tere te mooy mooy yàlla yi kon mbokki jullit yi lii mooy xam-xam lii mooy ngëneelam ci alquran ak sunna ak ci wax waxi nit ñu baax ñi rawatina abdullahi wa xadimu rasulillah li tax itam a seex Muhammadu Muntaxa waxtu wu nekk muy jaajuloo ngir ñu fob ndaw yépp ku jàngutoon na dem jàng ji ngir xam li ci alquran wax ak li ci sunna wax ak li ci nit ñu baax ñu wax ak li ci sayxul xadim wax kon yàlla nañu ko yàlla fayal te yàggal ko fi te may ko fan wu gudd ak biir ba mu àggale mboolem naaram yi dañ ànd koog moom wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.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

أشهد أن لا الحمد لله الذي أنعم علينا بإظهار سيد البشر وقدر ولادته في هذا الشهر الشريف الأزهر وليلة ولادته صلى الله عليه وسلم فاقت أنواره النجم والقمر وعكف على منزلة عامنة الطير وهلل وكبر وانشق إيوان كسرى ومال وانكسر فسبحان من أرسله كافة للناس فبشر وأنذر أحمده حمد من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب المعجزات التي بطول الزمان ذكرها ينشر اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم المحشر أما بعد فيا أيها الناس سبق في علم الله كما ورد في القبر ما كان وما يكون وما غاب وما هضر فسبحان من اطلع على خلقه فعلم طاعة طاعه وكفر من كفر قبض قبضة من خلقه وقال هذه إلى الجنة ولا أبالي وهذه إلى سقر وقبض قبضة من نوره وقال كوني محمدا سيد البشر فكان بين يديه كالمصباح الأنور وخلق من نوره جميع الأنوار والكائنات وكان اسم الرسول على العرش مسطر مكتوب عليه لا إله إلا الله لا أغفر لقائلها حتى معها يا محمد تهدى فلما أراد الله أن يخلق آدم أبا البشر أفرق على طينه قطرات من نور النبي المفتخر wa qaala lahaa kuuni aadama fa kaanat kama jaa fi siyar wa fi lxadiisi min karaamati ala rabbi anni wulidtu maxtuunan wa lam yara ahadun saw'ati wa anhu wa anhu annahu wa anhu annahu qaala inna allaha astafa kinaanata min waladi ismail wastafa qurayshan min kinaanata wastafa min qurayshin bani haashimin wastafaani min bani haashimin wa ana xiyaarun min xiyaar min xiyaar

الحمد لله الملك المعبود الواحد الأحد اللطيف الودود البصير الذي يبصر جريان الماء في الحجر الجملود ولا يخفى عليه دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليالي السرور أحمده سبحانه وتعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نبي تشرفت به الأنبياء والآباء تشرفت به الآباء والجدود اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما نبت زرع وأورق عود أما بعد فيا أيها الناس ظهر الحق المبين والعيون عمي لا تراه ووضح الطريق المستقيم فليرجع المفتري عما افتراه وفي مثل هذا السهر العظيم المقبل طلعت شمس الإيمان وذلت عبدة الأوثان وظهر دين الإسلام بولادة سيد المرسلين خرج من بطن أمه معتمدا وبالملائكة الكرام مقتضبا ناظرا ببصره الشريف إلى السماء مقطوع السرة مختونا مباركا على الأمة مامونا وظهر معه نور أضاء له قصور بصرى وأطلع الله في السماء نجوما فصيرها لسياطين رجوما ولم يزل عليه الصلاة والسلام ولوائح السعادة تلوه على شمائله وبراهين السعادة تظهر بدلائله حتى استكمل من السنين أربعين arsalahu llahu li kaafati lxalqi ajmain wa fi lxadiisi kuntu awwala alanbiyaai fi lxalq wa aaxirahum fi lbax wa innama buistu aaxira zamaani li allaa yattalia al umamu فضائح أمتي يغفر الله لنا ولكم آمين Mm-hmm.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 تبارك العلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى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 والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله الله أكبر سمع الله حبنا لك الحمد الله أكبر الله الله أكبر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

على الأنعام وتنقسق من عينها ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من وجوه يومئذ ناعمة لسعيها في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية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 فذكرنا أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله allah الله الله asalaamaaleykum. asalaamaaleykum.